préfet du département de Kaolack messieurs les sous-préfets mesdames messieurs les maires monsieur le président du conseil départemental de Guinguinéo monsieur le président du conseil départemental de Nioro chères autorités ici présentes mesdames messieurs chers amis sportifs frères du football chers invités, je vous salue, vous tous. damay wax alhamdulilah bu ñu yàlla mayee ñu fekkee bés bu màgg bii lii ci ay jamono ci ginnaaw kuñ ko waxoon nga ne gént doon waaye tey yàlla réalisé na ko kon boog alhamdulilah di ci félicité nag peuple Sénégal bi yëpp. waaye di ci bëre félicitation monsieur le président de la république Macky Sall ndax nag Macky Sall ci ayam la yàlla def lii nii na ne yàgg nañu xëccoo mu ñëw fi kon boog jërëjëfee Macky Sall di féliciter tamit monsieur waaw wax dëgg yàlla nag monsieur le ministre ba nga ñëwee ba équipe nationale kenn jooylu fi biir kenn jooylu fi ay détails kon boog yow ah man nag wax ji lu damay wax rek ne mbir mii nii ñaari interpellation laa ci am bu ci njëkk ñun ndaw ñi ku bii ñun lay waxal dama ne ñun ñëpp dañoo war a takku nekk ay Sadio Mané nekk ay Aliou Edouard Mendy nekk ay Kalidou Koulibaly ñoom góorgóorlu nañ seen domaine jël tur Sénégal yóbbu ko ca kaw a kaw ñu nit nañ def ni ñoom ku ci nekk ci la nga nekk fexeel ba tur Sénégal nekk ca kaw loolu moo ci war a def beneen interpellation mooy ñun nag autorité locale yi ak autorité yi nekk Kaolack ci la jëm mooy nag Sénégal gañe benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar waaye nag ndaw li doon doon neex suñ xoolee ci 22 jours yi ñu gis ci loolu nag mooy wane ne feebar bu nekk ci football Kaolack waa ak ci sportul Kaolack loolu nag ça nous interpelle nous tous te ñun ñëpp war nañ jóg pour saafara loolu moo tax en tant que président conseil départemental je m'engage à appuyer le football local rawatina nag la petite catégorie muy góor di jigéen nag gis naa tamit le football nekk di def ci Kaolack c'est l'occasion de féliciter doyen Abdel ak ñi nga xam ne ne jëlu fi kàddu sànq di terminer rek di wax ne monsieur le ministre nga gërëmal ñu président de la république lu mu nekk def ci ndaw yi ndax gis nañ lu mu nekk def ci sport yi firnde bi rek mooy stade yu am solo yi nga xam ne ne moo ngay koy ñu ñun nag fii ci département Kaolack suñu stade bi wax dëgg yàlla bëgg nañ ngeen taxawuñu ci taxawaay bu am solo ndax nag bëgg nañ fii ak quelque temps Sénégal organiser coupe d'Afrique te bëgg nañ Kaolack bokk ci dëkk yi ak ay match yi. di wax ne monsieur le ministre soo demee nga wax ñu joueurs yi te nag ñooñu tàmbali ndax xas nañ ko tàmbali ba pare. coupe d'Afrique ñëw na coupe du monde lañ bëgg. vive le vive les Lions vive les Lions vive les Lions.